Pikine Kër Massar Thiès Louga Saint-Louis Kaolack Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn bismillahi rahmaani rahim assalaamu aleykum wa asalaamaaleykum sëriñ bi sëriñ Mouhamadul Mountakha Bachir Mbacké xalifatu kullu maa ngi yëkkati ay kàddu nuyoo yoo xam ne sama xol laa ko tibbee ak i kàddu ziyaara ak i kàddu di la ndokkeel ci bés bu màgg bii ñu dëgmal di bésu ngëneel ci diine lislaam di bésu yaakaar itam ci jullit yépp muy màggalu Tuuba ginnaaw bu ma la nuyoo ak délégation bi ànd ak man ma wëlbatiku joxaat la suñuy nuyoo ak suñuy ziyaara jëm ci njabootu xaadimu rasul gépp gi toog ci sa ginnaaw nga jottalil ñu nuyoo boobu ak ziyaara boobu ma ñëwaat sëriñ bi ci di la sargalaat si ajjuma bële ñu génn mu doon ubbiteeg juma masalikul jinaan ubbite xam ni jàngat nañ si yaatali xéewal ak jàmm akub déggoo jëm ci diine lislaam bi yépp rawatina ci këru diine lislaam yépp yi nga dajale keroog ci ci naan waaye nekk na it yaatal xéewal ak yaatal jàmm akub déggoo ci mbooleem diggante ñi nga xam ne it ñoo seq wàllu àdduna kon sëriñ bi maa ngi la ci gërëmaat di la santaat bu baax a baax ci sa taxawaay ba lépp sotti ak jàmm jërëjëf bu ma dellu si waatee ci li jëm ci màggal gi maa ngi lay féddale sama pas-pas si gouvernement bi taxawaay bi nga xam ne war na ko taxaw ci sa wet ba lépp lu yitteel dëkk bi rawatina li jëm ci wàllu màggal gi ñu mën ci taxaw niñ ci war a taxawee la ciy jiitu nag mooy wàllu ndox ak assainissement ndax bu ñu amee seetlu waxtu wi déwén bu ñu fi yàlla bàyyee màggal gi ak dëwam jéeg ci biir nawet lay tombe loolu nag dafa waaj dafa dafa laaj ñu am waajal ba bëgg naa bu ñu génnee si màggal gi ñu saytuwaat mbiru ndoxu Touba ak réseau yi fi nekk ba xool dëgg-dëgg ak tolluwaayu dëkk bi lan mooy solution yu gën a yaatu te nekk luy gën a méngoo ak bëgg-bëggu dëkk bi waaye ak yitte askan wi nekk fii ci Touba ginnaaw loolu it mbirum courant dafay nekk lu soxal dëkk bi ndax yaatuwaay bi ak tolluwaay bi loolu it gouvernement bi ak Senelec ak ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi liggéey ci wàll woowu daañ ci taxaw taxawaay yu war ba lépp mën a yomb Euh, ginnaaw loolu sëriñ bi maa ngi ñëwaat bi ma ñëwee tey ci suba dem naa visiter complexe Cheikh Ahmadou Bamba Xadim Rasoul complexe bi nga tàmbali liggéey bi weer yi ñu génn di la wax ne de wax dëgg yàlla gis nañu fa liggéey bu rafet gis nañ fa it liggéey bu kéemaane liggéey bu ama am solo ci tolluwaayu bâtiment yi ak tolluwaayu daara gu mag googule waaye li ma ci gën a yéem mooy loo xam ne ay weer rekk ci ginnaaw nga ko tàmbali waaye tey ba ñu fa demee fekk nañ fa ay bâtiment yu bare bare yu R plus ñetti étage ñeenti étage yu taxaw ba pare muy wane pas-pas ñu ngi dënk liggéey bi ak pas-pasu taalibe yi nga xam ne ñoom it wuyu nañ la ci liggéey boobu ñu la si ndokkale nag bu baax a baax ndax daara jooju xam ne lu sëriñ bi bindoon la bàyyi fi kon nag sumb nga liggéey bu ama am solo boo xam ne ñëpp war nañ ci taxaw ñëpp war nañ ci jàpp ndax yow yaa ubbi liggéey bi yaa wane it jëfit li tax liggéey bi mel noonu ba tax na gis naa bi ñu ma présenté daara ji ne ginnaaw jàngale diine gi nga xam ne moo tax mu jóg boole nga ci ab métier yoo xam ne ay métier ñu fa mën a jàngal ñenn ci ndongo yi wàllu woowee nag ñun mën nañ ci taxawit sunu wàll ndax dama am yéene ci ñeent fukki département ak juróom yi ci biir Sénégal benn bu ne ma taxawal fa daara métier boo xam ne danañ tàggat xale yi jàngale ni métier ba nga xam ne bu ñu fa génnee wutub xëy dana leen yomb lool kon su sa ndigal mën nañu ci wàllu daara liggéeyukaay yi ñu indi itam loolu mu nekk beneen euh, suñu taxawaay ndax moom lañu fas fas yéene def ngir yombal liggéeyu gone yi kon sëriñ bi ñëw bii tey dafay wareef si ñun ñu ñëw tam andil la ziyaara ak ndokkale Sénégal yépp ndax màggal gi nekkatul rekk mbiru yoon wi nekkatul rek mbiru lislaamu Sénégal waaye dafa nekk lu wër àdduna bi yépp kon ñu ngi lay ndokkale te ñaan yàlla suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool te ànd ak wër te lépp loo sumb suñu borom taxaw la ba nga mottali ko te am nañ si yaakaar ñu ne lépp lu si suñu wareef incha allah daañ ci taxaw ci sa wet ngir indi itam naa li nga xam ne mooy suñu wàll ci liggéey bi nga sumb dinañ ko dinañ si jàpp bu baax a baax maa ngi sant bu baax te la gërëm ndax xam sa yéene ci liggéey bi ma yàlla dénk xamit say ñaan ak sa jàppale kon yal na yàlla yàggal loolu